Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous avons décidé d'accompagner le président. Accompagner un président, ce n'est pas toujours de lui poser des problèmes, mais c'est aussi de lui présenter des solutions. Et il fois les solutions présentées, Peut-être il faut nous donner les moyens de réussir le programme qu'on a défini pour la solution à Thiès. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse, parce que mon mot moi la formation, moi emploi. Formation, emploi, fait que nous avancer. Il faut que la jeunesse ñuy xalaat di peut-être une zone économique spéciale intégrée qui na permettre de régler le problème de l'emploi et le problème de la formation une zone économique spéciale intégrée c'est une zone où on peut regrouper tout le monde il y a comme on dit il le mot intégré qui est aussi qui est très important à l'intérieur. Il y aura des jeunes, il y aura des entrepreneurs, il y aura des industriels. Tout le Sénégal et l'extérieur vont se réunir pour régler le problème de l'emploi. Qui loolu ci beaucoup d'experts voyager aussi avec beaucoup d'experts pour faire l'ensemble des études l'ensemble des études terminé nañ ko l'inco, déposer ko déposer mais ñëpp xool nañ ko ba xam ne lu a nekk la ñu ànd ak nit ñëw wër ak ñoom monde bi ba gis fi ko def Éthiopie bu Éthiopie mais l'Éthiopie, c'est une ville c'est un pays qui est en train de se développer à cause d'une zone économique sociale intégrée boo wax ni dimension bi day na Euh, foofu tam noonu la Île Maurice yàggul dara Sénégal moo ko rawoon léegi ñoom ñu ngi presque ci plein emploi boo demee Kenya la même chose donc ñu jàpp ni tey président wax naa ko léegi ñëw ñu rek pour poser ko ay problème dañu ñëw aussi pour xool ban solution lañ mën a apporter pour que jeunesse bi seen soxla ñi mën ko def ci loolu la xalaat vraiment pour dëkk li ñuy tuddee zone économique sociale intégrée xale yi tey li ñuy wax yëpp social social social mais nit koo xam ne am nga formation am nga liggéey régler nga sa problème social parce que boo feebaree mën nga faj sa bopp boo soxlaa loo soxla mën koo fajal sa bopp donc loolu mooy euh, régler problème mu social yi nga xam ne dañ koy wax toujours ci Sénégal loolu nag monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan. à partir d'aujourd'hui euh, nga téyal ñu suñu projet bi xam ne projet la boo xam ni Thiès yëpp au-delà même de Thiès yëpp daf leen a ñor naam peut-être maa ngi des jël naa décision jàppale président mais jàppale président mooy jàppale jeunesse bi et jeunesse bi ñu bëgg a jàppale ñëpp ci bokk dafa naa ne tey ñu fi nekk nii ñëpp la kenn manqué wul noonu la ñu war a ànd ak waa Thiès zone bi nag balaa yàgg. balaa yàgg incha allah euh, bu fekkee ni euh, neex na yàlla jàpp naa ni zone bi dina dina sotti li nga xam ne moo ci war yëpp moo doon ay bailleurs de fonds yi nga xam ne ñoo ko war def ñëpp ñëw nañ joxe nañ aussi seen engagement pour liggéey ci zone donc pour ne pas téye kàddu gi lu gën a bëri ñu bàyyi nit ñi ñu xalaat ci bu ñu amee loo xam ni bëgg nañ ñu waxtaan ak ñoom pare nañ pour waxtaan ak ñoom wax leen lan la. naka lañ koy defee ak vraiment lan mooy zone spéciale intégrée